tuubaak tiwaawan ñaseen jaamala canaba kamaaka laayeen wa fum cira teralal kadaaka saaxi ma albaaqiina ajmain yow foo fi gis kenn ci ñoom fonkal te bul safoo ak kóolute di seetaan chaîne bi woy leen di ko seetaan ak di ko topp ndax seen cofeel mooy sunu mbégte te li gën a neex mi ngi ci sunu kanam. Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV. abonné leen ci chaîne youtube Tivaouane 7 TV te tamit bu leen fàttee activer cloche notification bi pour mën a recevoir bépp bataaxal bu ñu dugal ci bu nekk. imaam sëñ Mouhamadul Mansour nee na jërëjëf. nee na fa tabaarakallahu sunu maam ja Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Al Marxoum. daf daan wax ne nag nit ñaar la. nit daal dañu koy biral. wala fa tabaarakallahu ñu yalu ko. te mboolem a imma yi nekk fii. boole nañu seen bopp nekk benn. boole nañ nag ñoom ñëpp seen bokk seen. bopp nekk benn. topp ci ginnaaw ginnaaw imaam saw. topp nag ci ginnaaw imaam saw mii. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu sëriñ bi ne mu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaye nag ziyaara la. yóbbante la nuyoo ak ziyaar ci Thierno Ahmed Tidiane Ba. yóbbante la nag nuyoo ak ziyaar ci Thierno Ahmed Tidiane Ba. fa kilifa gu mag. di kilifa gu mag fa tabaarakallaahu. ci tariqa Cheikhuna Tijaani bi. ci tariqa Seydi Cheikh Ahmad Tijaani. di it tamit ku fonk Seydi El Hadji Malick. di nag ku fonk sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick. ndax at mu jot am na bés. ndax nee na at mu jot am na bés. ñoom mboolem fuutanke yooyu. ñoom mboolem fuutanke yooyu. danañu boole li ñu am. danañu boole nag li ñu am. ak li ñu amul. ak li ñu amul. ñëw ko Tiwaawan. ñëw ko Tiwaawan. yendoo ndoo ak sunu maam Cheikh Seydil Hadji Malick foofu te zawiyee ba sëriñ bi nee na te wallaahi loolee ngeen di def loolee ngeen di def Seydil Hadji Malick yëg na ko nee na loolee Cheikh Seydil Hadji Malick yëg na ko njabootu Seydil Hadji Malick yëpp yëg nañ waaye nag njabootu sunu maam Cheikh Seydil Hadji Malick yëpp yëg nañ loolu fa tabarakallahu loolu yàlla na yàgg fa tabarakallahu jëf yu rafet yooyu yàlla na yàgg Ahmed Tidiane yal na ko yàlla yàggal ci kanam. nee na Thierno Ahmed Tidiane ba yal na ko yàlla ci kanamu njaboot gi. te yàlla dolli ko wér. te yàlla dolli ko wér. ñu ngi fàttaliku. sëriñ bi nee na ñoom mu ngi fàttaliku. am na bés am na kaddu gu mës a jóg. am na kaddu gu mës a jóg. mbokk wax ko. benn mbokk wax ko. waaye ba Cerno Addo. waaye nag ba Cerno Addo. dafa ne ki gën a tuuti ci njabootu Seydil xaaji malik dafa ne ki gën ndawe ci njabootu Cheikh Seydil xaaji Malick. xattaa liir bi juddu démb. xattaa xale bi nga xam ne sax dañ koo tudd démb. ñun kookee suñu sëriñ la ñun. ñun del kookee suñu sëriñ la. fa tabaarakallaahu wax jooju doon doon wax ju rëy a rëy. nee na fa tabaarakallaahu wax jooju nekk wax ju rëy a rëy rëy. dolli itamit yaakaar. dolli nag da mu nekk wax joo xam ne guy dolli yaakaar la. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. na ko yàlla sàmm. ko yàlla sàmm. mbooleem mbokk yi fi daje sëriñ bi ne ñu ngi nuyu nag mbooleem mbokk yi fi daje ndax wattaqullaha allazi tasaaluuna bihi wal arxama nee na sunu borom subhaanahu wa taala yàlla moo ne na ngeen ma ragal man yàlla waaye seeni i diggante nag nangeen ko rafetal kenn ku nekk ci ñun fi nga bokk boole woo sa bopp waaye yàlla la soob boole la fa nee na kenn ku nekk ci ñun fa nga bokk du yow yaa fa boole sa bopp waaye yàlla la soob nag mu boole la foofe kon nag loolee alalu yàlla kon mbokk googu alalu yàlla la sëriñ bi ne ñu ngi nuyu mbokk yëpp nag. ñu ngi nuyu dëkkandoo yi. fa tabaarakallaahu ne ñu ngi ciy teg nag dëkkandoo yi. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. buñ ci jiitalee Papa njaay mii. nee dëkkandoo yooyu buñ ci jiitalee nag Papa Ndiaye mii. mboolem ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp yóbbaale na leen. géew mboolem ñi mu bokk ak dëkk ci gox bi nag ñoom ñëpp yóbbaale na leen géew. sant dëkkandoo yi bu baax baax. waaye sëriñ bi ne ñu sant dëkkandoo yi bu baax baax. ndax li bu agge tay ndax nak li ñu doon defaat muy besalat bu yegge tay ku ci deful sa alal def nga ci sa ñaan. fa tabaarakallaahu ku ci deful sa alal nak def nga ci sa ñaan. olof nak moy wax tagge bo gis amna jappal diw. olof nak moy wax ne tagge bo gis rek amna jappal diw. biñu fi yendo ci suba ba legi ñu ngi dégg turu Papa ndjay biñu fi yendo nak ci suba ba legi rek ñu ngi dégg nak turu Papa ndjay Papa Ndiaye deful fondement bi. naam nag Papa Ndiaye tàmbaliwul liggéey bi def fondement bi. waaye bi ngeen bëggee yaatal bëgg mu gën a yaatu ba ñëpp mën a dugg. ci ngeen doon wër quartier bi ba agsi ci Papa Ndiaye. fa tabaarakallaahu bi ngeen bëggee yaatal bëgg mu gën a jekk gën a mu gën a yaatu nag ci ngeen doon wër quartier bi ba yegg ci Papa Ndiaye. bi ngeen agsee Papa Ndiaye wàcceel leen bépp coono. fa tabaarakallaahu bi ngeen wegsee ci moom nag mu ne wër géeg yooyu yëpp nag wàcce naa leen ko. te man wóor na ma ne Papa Ndiaye ëppalewul ci koñ bi. fa tabaarakallaahu te moom mii wóor na ne Papa Ndiaye ëppalewul ci koñ bi. waaye nag lii nag pour mu àgg ba sotti yàlla mu ngi ko dogalee ci loxol Papa Ndiaye. waaye fa tabaarakallaahu tajdiid gii ñu daan def nag pour mu yegg ba sotti nag yàlla mu ngi ko jaaralee ci loxo Papa Ndiaye mii. loolee la yàlla dogal. nee na loolee la sunu borom subhaanahu wa taala daal di dogal. te diine sëriñ bi ne diine lislaam. soxla nañu. soxla nañu. moyen. moyen. soxla nañu. soxla nañu. kattan. kattan. soxla nañu. soxla nañu. yéene bu sell. yéene bu sell nag. te lii ku ko xool. te rek fa tabaarakallaahu liggéey bu njëkk bii ku ko xool. xam ne yéen ñëpp. xam ne yéen ñëpp. papa Ndiaye mi na seen yéene. xam ne yéen ñëpp nag la ngeen bëggoon papa Ndiaye mi mottali na seen yéene nag. ba romb sax seen yéene. ba romb sax lu kawe seen yéene. fa tabaarakallaahu kon papa Ndiaye yal na yàlla fay la. sëriñ mi ne kon xaaji papa Ndiaye yal na yàlla fay la. Mbengue wax na sànq ne alalam mënoon na koo jël def ko ci leneen. nee na xaaji Mbengue wax na sànq ne alalu Pape Ndiaye nii alalam mënoon na koo jël def ko ci leneen. waaye dafa ne loolee ñoruma. waaye dafa ne loole nag ñoruma. man li ma ñor mooy diine lislaam. man xaaji papa daal li ma ñor mooy diine lislaam. man li ma ñor mooy. jaami yalla yi lima ñor nak moy jamu yalla yi yeena dekkendo ak mom yeen yeena dekkendo ak mom te bes bu ne te bes bu ne ngeen tek sen beut ngeen tek seen beut wala ngeen deg wala ngeen deg ci lu bax ci lu bax ci ndimbal ci ndimbal lo xamne li lo xamne ni Papa Ndiaye Papa Ndiaye mu ngi koy yëkëti mu ngi koy yëkëti diko ci yam jaamu yalla yi diko yëkëti nak diko jëme ci jaamu yalla yi tabarakallah kon tabarakallah ni jakk ji wexé ni ni jakk ji ni wex ni ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir jàkk ji ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir jàkk ji yëpp ba lambaale Papa Ndiaye ba lambaale moom mii di xaji Papa Ndiaye yal na ko yàlla def ci karaw yi mu weexee tàll noonu yal na ko yàlla defal muy fan wu gudd dem ba karaw yëpp weex loolu mu ànd ak wér ak kàttan ànd ak sutura ànd nag ak sutura bi jaayi rasulillahi sëñ bi nee na loolu ñu ngi la koy ñaanal bi jaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu wax mbokk yi rek ne leen waaye seriñ bi ne ñu wax mbokk yi rek na leen lii nga xam ne pare na lii nag nga xam ne pare na. saytu bi. saytu bi. taxawu bi. taxawu bi. ak euh, sellal gi. ak sellal gi. kenn ku nekk ci yéen nekk na ci sa loxo. kenn ku nekk ci yéen daal na jàpp ne la kay sellal ak na koy toppatoo mu ngi sa loxo. na ngeen xam ne fii néegu yàlla. waaye nag nañu xam ne fii daal du bërëbu sàmba du bërëbu demb néegu sunu borom subhaanahu wa taala. nañu xam ne kenn ku fi nekk di fi dugg si boo fi dee ñëw na fi indiwaale yéene yu sell. kenn ku nek dal bàyyeekoo nga sa keur beug ñew ci neegu yalla bi na nga and ak yene gu sel nak te na ngeen xamni ne bo leen fi duggé te taxaw taxaway sappe kenn ku nek ci yéen mbag ak mbag li nga xamni ne nuxnu ci soxol ci lu bax ci yiw ci teranga eumbal ko ki nga ne mo nek ci sawet fa tabarakallahu neena dal ci gattal mbollem kuy ñew ci jakka ji so beugé lang nga fay wut ci nak nga am ko na nga ànd ak xol bu sell mooy fa tabarakallahu jaamu yàlla yëpp nga yéene leen jàmm lu leen yàlla defal nga yéene leen ko waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu mooy leen ci buumu yàlla gi nee sunu borom moo ne yéen ñëpp na ngeen àndandoo ngeen ngoyaanu ci buumu yàlla bi nga la rekki waaye nag bu leen tàqalikoo te bu leen teqalikoo mukk yàlla ne bu leen teqalikoo mukk mukk mukk mukk fa tabarakallahu fa tabarakallahu mbokk yi mbokk yi nañu bëggante ci sunu biir. sëriñ bi nee na jàkka yeeg jumaa yi yëpp nag am na solo waaye nag avant tout nañu bëggante ci sunu biir nag. nañu yéenante jàmm. kenn ku ne na yéene sa mbokk nag jàmm. jullit moroomu jullitam mooy mbokkam. nee na jullit daal moroomu jullit mooy mbokkam. nit bi nga bokk moom ndey ak baay bokk benn ween boo leen nàmp te doo leen bokkundoo bëgg yàlla doo leen bokkundoo gëm yàlla. fa tabaarakallaahu nee na sunu borom la mu wax rek innamal muminuuna ñoom ñëpp ixwatun kon la ca topp mooy fa aslihu bayna axawaykum. yéewalanante ci seen i biir. nee na sunu borom moo digle na kenn ku nen na yéwénal jëm ci sa morom. jàppante te yenen te te te te lamini ñu ñu sellal ko jëm ci moromu julit neena na fa tabarakallahu kenn ku nek dal loy wax na nga delu ci ayba la yalla wax wa quulu linnaasi husnan na ngay wax lu rafet ndax kat wax lu rafet serigne bi neena wax lu rafet lu ñu yalla digal la lolu sunu borom subhanahu wa taala mo ñu ko digal dana degeural mbokk dana tax mbokk gi degeur dana rafetal ak and dana rafetal ak and wax lu rafet ci sa làmmiñ nee na di génne ci sa lu rafet yiw rëy rëy rëy gitu. fa tabarakallahu yiw gu rëy rëy rëy mu ngi ci waaye itamit musiba gu rëy rëy tamit mu ngi ci waaye fa tabarakallahu di wax safaan nag musiba gu rëy rëy rëy mu ngi ci lu tàkk làmmiñ a ko taal nee na fa tabarakallahu mboolem lu tàkk rek làmmiñ moo ko taal waaye lu fay itamit làmmiñ a ko fay waaye lu fay lu jekk lu rafet lu ne mu ngi ci Abdou Aziz na wax ne jeex na ba pare def fi lu rafet xajatu fi waxatuma laaj fi def lu ñaaw Abdou na wax bi jeex na ba pare def fi lu rafet sax xajatu fi waxatuma la nga fiy def nag lu ñaaw. te mbokk yi nañu xam ne wërsëg yi mënu la tolloo. nee na fa tabaarakallaahu ñun ñëpp nañu bàyyi xel ne wërsëg yi mënta tolloo. yàllaay wërsëgale. nee na sunu borom subhaanahu wa taala mooy wërsëgale. yàlla mooy fal njiit. dafa tabaarakallaahu kenn ku ne yàlla mooy xool la ko soob ci yaw mu def ko ci yaw yàlla mooy def barke ci nit. yàlla nag mooy jël am nit def ca barke. kon su ko defee. kon su ko defee. li fi nekk mooy. li fi nekk mooy. ñun ñëpp nañu boole ñu nangul ki nga xam ne moom la yàlla jiital ka cay topp topp ci ka cay topp toppaat ci. kenn ku nekk daal boo bëggee noppalu mooy ku yàlla jiital nag na nga nangu dogalu yàlla. dëkk gi ngeen dëkk nii. nee na dëkk gi ngeen dëkk nii. kenn ku nekk ci yéen. kenn ku nekk ci yéen. sàkkuwuloo woon pour dëkk fi. déedéet du yow yaa sàkku pour dëkk fi. waaye yàllaa la womatal boppam ba xiirtal la fii ba yow nga tey nga am fi suuf tabax fi li nga fi tabax. kenn ku nekk daal fa nga dëkk na nga jàpp ne yàllaa la woomat xiirtal la ba nga am fa suuf nag ba nga mujj faa dëkk tey. lépp mënu weex waaye lépp mënu la ñuul. sëriñ bi nee na lépp mënu la weex waaye lépp nag mënu la lenn lu ca ne. lenn lu ca nekk rek. ci nit. ci nit. leen dogalu yàlla. lenn lu nekk ci nit daal na nga xam ne noonu mu mel nag loolu moo soob yàlla ci yow. su defee su ko defee. jàmm am ci sunu biir. jàmm nag am ci sunu biir. sutura am ci sunu biir. sutura yàlla defal ñu sutura si sunu biir. ñun ñëpp bu ñu àndandoowee maase lu ñu wax yàlla yàlla ñu ko defal. nee na bu xol yi tàppoo ñun ñëpp ñu yëkkatindoo di doorandoo lu ñu bëgg insha allahu taala sunu borom dina ko jàppandal. maam Abdul Aziz daan na wax ne nañu tappe xol yi. nee sunu maam Cheikh Al Hadj Abdul Aziz Dabakh daan na wax ne dina leen tappe xol xol boo ko tàppee lépp loo ci bëgg def di ko ci mën a def fa tabaarakallaahu nit ki daal bu xolam sellee lépp lu mu bëgg rek di ko dagaan yàlla mën na yomb ca moom sunu borom subhaanahu wa taala nee na maa leen bind waaye kenn ku nekk ci sa xol laay xamee laay yëree bu lépp baaxee xol bu xol ko rek lépp baax na fa tabaarakallaahu nee na sunu borom moom moo wax si xadiisu kursi ne seen sance yeeg am am yeeg yooyu yëpp man yàlla xooluma ko li may xool mooy seen xol ku sa xol sel rek lo bëgg ci man mu dal di jàppandal waahidil qalba min xiqdin wa min asadin wa kulli wasfin za ميم بين أقراني وطاهر القلب من حقد ومن حسد بوصف زميم بين أقران أقراني وطاهر القلب من عقد ومن أسد وكل وصف ذا ميم بين أقراني من حسد وكل وصف ذا ميم بين أقران عافني من كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل عافني من كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العليل أنت الشافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا أنت قاضي والمنادي جبر وطهر القلب من عقد ومن حسد وكل وصف من بين القلب من حقد ومن حسد وكل وصف من بين أقراني طهر لنا القلب maam Abdou ne tahir lana al qalba yaa rahmaanu yaay ki ko mën amin ci anam mu dund ndax rek ndax yow rek yaa ñuy mënal tahir lana al qalba yaa rahmaanu yaay ki ko mën ci anam mu dund ndax yow rek yaa ñuy mënal ñëw leen ñu bennoo te nekkit jaam ñu dëggu te jub te sopp yàlla bu baax awlan wa kulla amal lii bu amee daañam ridaaw duuna kadib fa jarribu ixwati ndax wér na wala wérul fa jarribu ixwati ndax wér na wala fa jarribu ixwati ndax wér na wala wérul ترجموا إخوتي نفرنا ولا برون أجربوا إخوتي نحورنا ولا برون أصلحوا كما أمر الرحمن وسمامنا اليمدك لدفل وصلح قال وصلح قال العلي خير دفل لموخ Maka qaala rabbi ni moo ku deful defarul xaaja ni lañ ko may nana la def ba nekk ku baax xanaa mu teet bépp mbir moo xam ni day ñagasal laabal xolam bëgg ñëpp lillaahi muhtasiban di jokkit ku ko dok fu mu tey ku bégal yaatal te di muñ فمتلو تيبان يتوهن كتوهن مبالغو لوجه الله تيبانل تيل براي بلو خير لقاق الشابعنا صبرا وصبعا وفني ووخل ملل صني ملل ورب العاشي هدي قباخ بلتايب اليقي يو واني دق دمل بلتايب اليقي يو واني دق دمل bul tay bul yokki yow yoon waa ngi dëgg bul tay bul yokki yow yoon waa ngi dëgg bul tay bul yokki yow yoon waa ngi dëgg demal uusikum ixwati lillahi xaariqina maam du nee na ngeen ma déglu wa ينحقمنا لبنا مد أنك وظيفة جماعة تبنج تيل تولو معنى آية والألفاظ سوكو دفعي دام رضا ربنا يا خلو الدد خلو الدق دفل يولي لوق شيخون التجاني واجد أفل لي ملخ نختلي يومي نجد أمل سمامنا عن الطريقة لا تغفل أخي أبداً إذا فعلت تنا المنا كعبد دفل مويل الشيخ أحمد التجاني موما تنوي ينصب دم أهله نم نب أبد ترل بلن خلو بلن نايو بكين دو إخواتي محمد إخوتي تتلل بلن خلو بلن نايو بلن أيبل مرامي اخوتي تقل سرين بنينا فتبارك الله بنج دولي دارا نينا سنو ويجور باي عبد عزيز باي واخنا لمام عبد وخيب نينا سنو مام شيخ الحاج عبد العزيز كوكا خم خم نقول بو لا يوري ku xam nag maam Abdou xam ne ci mbaax la ganee àddina ku xam maam Abdou xam ne xam nga ci lu rafet la juddoo ku xam maam Abdou nag xam ne ci lu rafet rek ci loolu la doon dox ak wax lu baax ak wax lu baax ak wax lu rafet ak wax lu rafet bu demee ba wax ne bu demee ba wax ne safara safara bu fi doon tàkk bu fi doon tàkk te ñu wax ne ndox moo koy fay. te ñu wax ne ndox moo koy fay. te ndox amul. te ndox amul. man Abdoul Aziz yàlla dogal ma guux ndox ma ak mar gi ma mar. ma man Abdoul Aziz ma góox ndox ak mar gi ma mar. man jaral na ma ma jël ndox moomu buusu ko ci safara si ñu safara si fay ngir adduna bi yëpp sauvé ma jaral na ma nag ma jël góoxu ndox boobu fay safara si ngir adduna bi yëpp sauvé ajaban bi bid'ati malikin wa imamina ni'mal fata man hada kull fakhara ajaban bi bid'ati malikin wa imamina الفتى من عاز كل فخار فبخ بخ يا سيدي وامل أذنا من كان عاجم عصره والباري أدبا يا سيدي وملاذنا من كان حاتم عصره والباري فبخ بخ يا سيدي وملاذنا ممبدو إن كان حاتم عصري والباه عجبا ببدعة مالك وإمامنا نعم الفتى من حاز كل بخار وانت والي البالي شيخنا ذاك الذي هم ضد ما منا للولاية والسعادة والتقى يا بلد وهلالة الأبرار تبارك الله فوق لني سرين بنينا فتبارك الله wuti. nee jóg di wuti. yomb na. jóg di wuti daal sëriñ bi nee na yomb na. waaye xam fu sa mbir nekk. waaye nag xam fu sa mbir nekk. foo loolu moo jafe. loolee moo jafe. ñun kër Seydil Xaaji Malick nee na ñun wa kër Cheikh Seydil Xaaji Malick Seydil hadji malik xamal nañu fu suñu mbir nek xamal nañu nak mom Cheikh Seydil hadji malik fu suñu mbir nek fi suñu mbir fi mu nek deug deug deug te suñu mbir nak fi mu nek deug deug deug moy ci li ni moy fa tabarakallah moy ci li ni ak jataay yi ak jataay yu melni xamna xam naa ñi toog nee na xam ñi toog jaaxle nañu jaaxle nañu. ñu ngi naan ñii toog dey. ñu ngi naan ñii toog dey. dafa mel ni ci seen kër la ñu nekk. dafa mel ni ci seen kër la ñu nekk. ñun lii moo ñuy bégal. fa tabaarakallahu ñun daal lii rek moo ñuy bégal. géew yii la ñu soxla. géew yii lañu soxla. ngir di bégalante. bàkk yàlla waaye tagg sayyiduna muhammad fa tabarakallahu kon fa tabarakallahu ñu sant Abdoul Aziz Mbaye bu baax a baax nee na ñu sant nag Abdoul Aziz Mbaye bu baax a baax a baax sant Serigne Mbaye Mbaye waaye sant nag Serigne Babacar Mbaye bu baax a baax sant itamit Mame As Mbaye mii waaye sant nag Mame As Mbaye mii bu ñu bëggee àggale bu ñu bëggee yeggale ñu joxante rendez-vous ci xadaratu jumaa bi. fa tabaarakallahu ñu joxante rendez-vous nag ci xadaratul jumaa bi. bu ngeen bëggee ñu dem ba deux heures du matin. nee na après xadara bi nag bu ngeen bëggee ñu dem ba deux heures du matin. sant petit bu baax. nee na fa tabaarakallahu sant petit bu baax a baax. ñii ma wax nii ñëpp. nee ñii ma wax ñii ñëpp. ba ci gawlo mii. ba ci gawlo mi ñun ñii ñëpp. ñun ñii ñëpp. yàlla ngi ñu fi indi. yàlla mu ñu fi indi. waaye jaarale ko ci Papa Ndiaye mii. waaye nag yàlla ñu fi indi nag jaarale ko nag ci Papa njaay mii. Ah. kon yow yàlla. kon fa tabarakallahu yow sunu borom. ñu ngi ci sa biir néeg. ñu ngi ci néeg ñu sa biir néeg. ay jaam toroxlu daje fi. ay jaam yoo xam ne yu toroxlu daje fi. yàlla. yow sunu borom. li ñuy dëgmal. li ñuy dëgmal. rëy na rëy na. diis na diis na. te it jaaxal nañu. fa tabaarakallaahu te it nag jaaxal nañu. waaye yàlla yàlla nag ñu ko yombalal. waaye yow sunu borom dara rëyul ci yow dara jaaxul la yàlla nga ñu ko yombalal. yàlla nag ñu ko yombalal. yow yàlla yàlla nga ñu ko yombalal. yàlla nga ñu may fekkee. yàlla nga ñu may fekkee. yàlla nga ñu may wér. yàlla nga ñu may wér. yàlla na nga ñu may sante. yàlla nga ñu may sante. xéewale ñu. xéewale ñu. ba lii ñuy dëgmal. ba lii ñuy dëgmal. ñu dugg ci. ñu dugg ci. defee ko ni ko bëggee. defee ko fa tabaarakallaahu ni ko bëggee liggéey. ba dese. ba dese. loo xam ne lii. loo xam ne nii. weer ci sunu kanam. fa tabaarakallaahu at ci sunu kanam. yàlla dana mën a faj aajo yëpp. dana mën a faj aajo yëpp ay at ci sunu kanam. sant bu baax Abdoul Aziz Sy. fa tabaarakallaahu di sant nag bu baax a baax maam Abdoul Aziz Sy. di suñu rakk. di di suñu rakk. di suñu doomu sëriñ. di suñu doomu sëriñ. di suñu doomu baay. di suñu doomu baay. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. lii yëpp. nee na lii yëpp. bu amee bu amee. c'est grâce à Papa Ndiaye. c'est grâce à Papa Ndiaye nag. yéen a dëkkandoo ak moom fii. nee na yéen yéen a dëkkandoo moom ak moom fii. muy taalibe. muy taalibe. di ko wàcce boppam. di ko wàcce boppam. waaye nag bëgg njabootu Seydil Hadji Malick. waaye nag bëgg njabootu maam Cheikh Seydil Hadji Malick. tey bu ko waxoon njabootu Seydil Hadji Malick ku ci ne. nee na tey moom bu bëggoon jotaay bi ëpp lii kenn ku ne ci njabootu Cheikh Seydil Hadji Malick mu wax la ko. ñaar fukki si yéen dinañu daje. fa tabaarakallahu seen yu bare bari dinañ daje fii nii. ni mu mel fii ci yéen nee na nii mu mel fii ci yéen noonu la mel ca Tiwaawan ca kër ga mu fa am fa tabaarakallahu noonu la mel nag ca xadara Seex Seydi El Hadji Maalik ca kër ga mu fa am luy mbaax mu di ko def ci yéen luy mbaax mu di ko def ci yéen mu ngi koy def ca Tiwaawan mbaax googu mu ngi koy def ca Tiwaawan di ko def ci njabootu Seydi El Hadji Maalik di ko def nag ci njabootu Seex Seydi El Hadji Maalik di ko def ci njabootu taggkatu rasulillah yi waaye nag di ko def ci waa kër Seydina Muhammad yi waaye tamit di ko def itamit ca mbokk dëkkandoo ya nga xam ne ñoom la dëkkal ca Tiwaawan fa tabaarakallahu الله ديكو ديف سي مبولم جامو يالا ييغا خامي رك يالا موغي جارال سيني مبير سي لوخوم ادرو يالا بي نينا فتبارك الله يالا نكو يالا ديفال تيات ñu sant wa jakki bu baakha ñu sant nak fa tabarak allah wa jakki bu baakha ba ko communauté bi nga xam nak mo fi ne. ci sen responsabilité. ci sen responsabilité. gestion wu li gestion wu li engagé wu na. engagé wu na. kon yalla yàlla may len carton kon nak yalla yàlla may len kattan. yàlla bo len yoon jox. yàlla bo len yoon jox. yàlla bo len échec. yàlla bo len échec. fa tabarakallah fa bo lem len nat yi nga xamné jóge nañ ci ci ay dawair ak sifi fi. lem len nat yi nga xamné kenn ku ne ko nga ci ay dawair yak sifi ñom ñep ñu ngi len di sante sëriñ bi nee na ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant. di leen ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla. ni ngeen ñëwee ci bismillahi rahmaani rahim. ni ngeen ñëwee ci bismillahi rahmaani rahim. yàlla na ngeen delloo noonu ci alhamdulilah. yàlla ngeen delloo noonu ci alhamdulilahi rabbil alamin. sant jigéen ñi. sant nag si jigéen ñi. ndax lii. ndax lii. du góor ñi rek. fa tabaarakallaahu du góor ñi rek. waaye jigéen ñi ca la ñu bokk. waaye jigéen ñi nag ñu ngi ca biir. na ngeen fonk seen xadratul juma. nee na fa tabaarakallaahu na ngeen fonk seen xadratul juma. seen waxtu yu juróom na ngeen di ñëw di ko joxe ci jàkka ji. nee na fa tabaarakallaahu waxtu juróomi ku ci amul ngant na ngay ñëw di ko joxe ci jàkka ji. jàkka ji. nee na jàkka ji. waratu la wéet. fa tabaarakallaahu tabaxuñ jàkka ji rek pour rafet na rafet na yem foofu. waratu la wéet. ji daal waratu la wéet. waxtu julli juróom bu jot. waxtu julli juróom bu jot. sappe yi. sappe yi. na doon ñaar fukki sappe. fa tabaarakallaahu jàkka ji na fees sappe yi na doon ñaar fukki sappe. sappe jigéen ñi. sappe jigéen ñi. na ñoo na doon fanweeri sappe. fa tabaarakallaahu jigéen ñi soxna yi ku ci amul ngant ñoom itam dañuy ñëw. fa tabaarakallaahu. kon fa tabaarakallaahu. fii la ñuy yemale kaddu gi. nee na kaddu yi daal foofu rek lañu koy yemale. di di di sant imam bu baax. waaye di santaat ak gërëm imam bu baax a baax. di ko di ko di ko di ko jaajëfal waaye di ko jaajëfal nag. mag la. nee na mag la. yaramam neexul. fa tabaarakallaahu yaramam neexul. te toogaay bi yàgg na. te toogaay bi mu ngi bëgg a yàgg ci moom. xam naa ne danaan def farataam rek. xam naa ne danaan def farataam rek. jóg jóg. delluwaat ci jàkk ja delluwaat ca kër ga ca kër ga delluwaat ca kër ga jàkk ji bu leen ko def grand place nee na ji daal néegu yàlla la bu ko kenn def grand place képp kuy jaamu yàlla képp kuy jaamu yàlla booleem tasbihaat yi nga bëgg a def fa tabarakallahu tasbihaat yi nga bëgg a def wala say nawaafil wala sax say nawaafil ñëwal nga def ko fii fa tabarakallahu jàkk ji pour jaamukaayu yàlla la boo fi jógee waaye boo fi jógee nag na delluwaat ci kër ga fa tabarakallahu bu kenn def néegu yàlla bi nag grand place ngeen baal ñu xàq sëriñ bi nee na ngeen baal ko xàq الفاتحة فاتحة صلاة الفاتح صلاة الفاتح آية الكرسي آية الكرسي الإخلاص الإخلاص فلق الناس فلق الناس تنجوبيني نك فتبارك الله نجوبيني نك دلوات سيني كر دلوات سيني كر دف أفير نجوبين togg nañ añ yu bëree bari ñun ñëpp añu fii togg nañ ay añ yu bëri sëriñ bi nee na togg nañ ay añ yu bëree bëri ñëpp toog añee fii na ñëpp nag toog añee fii fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu ku fi añee ku añee boo fi jógee boo fi jógee sa tabaski sa tabaski dana neex insha allah neex di nga am xar di nga am xar di nga am mbubu di nga am mbubu di nga am xaalis di nga am xaalis di nga am santé di nga am santé te ci jàkk ji laa ko waxee nee na sëriñ bi nee lii ci jàkk ji la ko waxee yàllaa ngi toog nee na fa tabaarakallaahu néeg bi nga xam ne mooy néegu sunu borom kenn ku ci ne kenn ku ci ne yàllaa ngi la teg bët yàlla mu ngi la teg bët te ñaan te ñaan dina nangu dina nangu teg ci tegu tege ci ñetti mbir tege nag ci ñetti mbir mbooloo mi ngeen doon mbooloo mi ngeen doon di ñaan di ñaan yàlla du delloo ñaan fa tabaarakallaahu mbooloo moom yàlla du delloo seenu ñaan jotaay bi ngeen def. jotaay bi ngeen def. maanaam fi ngeen toog. maanaam ci place bi ngeen di ñaanee. di ñaan di yàlla du delloo sa ñaan. am na place yoo xam ne ku fa toog yàlla du delloo sa ñaan. waxtu waxtu wi ngay toog. am na waxtu yoo xam ne waxtu ñaan la. boo ko toogee boo fa toogee. di ñaan di ñaan. yàlla du ko delloo fa tabaarakallaahu loo ñaan sunu borom da koy nangu. te ñett yooyu yëpp. te ñett yooyu yëpp nag. daje na ci jotaay bi fa tabaarakallaahu ñun mbooloo mi am na ñett yooyu yëpp nag. yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla bu yàlla tas yaakaar. yàlla na yàlla barkeel. fa tabaarakallaahu. sëriñ bi man maa ngi ko jégalu. sëriñ bi ne euh, sëñ Mansour sama papa Abdoul Aziz Mbaye nee na mu ngi bi kilifa gi di nee na boo gisee ba kilifa gi maam Abdul Aziz ba muy way. mu wàcce sama baat. nee na boo gisee moom mi mu wàcce baatam. xorma ga tax. li tax mu def lool mooy xorma ga moo tax. daf dafay lakk. nee dafay lakk. te doo ko yëg. te doo ko yëg nag. moo tax ma def loolu. nee sax loolu moo tax mu def noonu. waaye kaddu gi waaye nee na kaddu gi. mbégte rek tax mu yëkkati. kaddu gi daal muy yëkkati mbégte rek moo tax mu koy yëkkati. ak xol ak xel mu dal nag. ak nag ànd ak xel mu dal nag. ndax man su ma jullee juma fu dul tiwaawan nee na moom mii bu yàlla dogalee mu julli juma fu dul tiwaawan sama xel du dal nee na xelam du dal waaye tey de waaye nee na tey jii de ci juma jii ci juma jii sama xel dal na fi nee na xelam dal na fi kii ni mu jiite ndax kii kat di ñu jiite ni mu jiite fa tabaarakallahu sunu maam ju baax di ni mu jiite dafa am solo ni mu jiitee daal dafa am solo تبارك الله غورغيني فتبارك الله من جولينا تي جمعه نينا مومي جولينا تي جمعه لا تا نو كبر لا تا نوي كبر من بيتيت جوك موم مون بيتيت جوك ген جمعه ген جمعه خمنا نيب خمنا نينا خمنا موم نيب خمنا نكو تبارك الشيخ حاج مالك لولب نك تبارك الشيخ سيدي الحاج مالك nit du xeeb ki ko yàlla booleel. nee na nit daal du xeeb ki ko yàlla booleel. te nag ca sant mënta mat mukk fekk santoo ka nga xam ni fa la yàlla jaarale yi ba ko jot. nee na sant nag mënta mat mukk fekk santoo ki nga xam ne nag ci moom la jaar yàlla jaarale yëf yi ba nga jot ci nag. ñun du ñu dañ di sant Seydi Seydi Hadji Malick. nee na ñun daal du ñu dañ mukk di sant Cheikh Seydi Hadji Malick. te ñii ñooy El Hadji Malick. te nag ñii toog nag ñooy Cheikh Seydi Hadji Malick. daf ma woo téléphone. nee na sëriñ Mouhamadul Mansour da koo woo téléphone. ma ne ko waroo moo na woo de. mu ne ko sëriñ bi waroo moo na woo de. maa sàggan ba nga woo ma nag. man nag maa xaw a kii rek ba nga woo ma nag. maa war a ñëw ci yow rek. man nag maa war a ñëw ci yow rek. ndax sallallahu alayhi wa sallam. ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kum musaana woo ci saxaaba yi. kum musaana woo ci saxaaba yi. daaw ñu xaar mu woo leen. daanu ñu xaar sax mu leen di woo. dafa jàng sa par seen bar Abdou Aziz. nee na seen maam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. dama jàng ci barabam. dafa jàng ci barabam. mu am ku mu woo. mu am ku mu woo. ana diw. ne ana diw. kooku ne ko. kooku ne ko. haa ana bayna yadayk. haa ana bayna yadayk. maa ngi nii sa kanam. ma xam ni. nee na mu xam ne. sunnaa ngoogu. mu xam ne nag sunnaa ngoogu. loolu lu muy wund. nee na loolu lu muy wund. mooy waroo sori sa kilifa. loolu daal mooy njaboot warta sori nag kilifaam. ma jugee tukki bu méttee méttee méttee. nee na moom mii fa tabaarakallahu mu jugee tukki bu méttee méttee méttee. biig laa ñëw bërki biig bërki biig laa ñëw. nee na bërki biig ci la ñëw. mu woo ma biig. sëriñ bi woo ko biig. ñu ne maa ngi jégalu. ne ko ah Moulay Abdoul Aziz maa ngi jégalu. ma ne ko déedéet. ma ne ko déedéet. wax ma li nga bëgg rek. ma ne ko mu ne ko si wax ma li nga bëgg rek. ma def loolu. ma def loolu. ndax ñun. ndax ñun. nax nu. نحن خديم خديم لحضرتي لحضرتي مولانا الشيخ سيدي الحجماري ولكن نندال بين ميشيون لاج ام موي ليغي الحضر مام الشيخ سيدي الحجماري ين جن المولى تين ني نك جنو لين مولى بنونا لوكن بنونا بنو ابنائنا بنو ابنائنا tabarakallahu kon fa tabarakallahu mu wax ma mbir mii nee na sëriñ bi wax ko mbir mii ma ne ko danaa ñëw de mu ne ko insha allahu danaa ñëw de mu ne papi sa xarit ba mu ne ko papi sa xarit ba sa soppe ba sa soppe ba sa sa àndandoo ba sa àndandoo ba ki la bëgg lool ki la bëgg lool mooy def lu mel nii di jumaa ju rëy ji mooy def lu mel nii muy jumaa ju rëy ji ma ne ko danaa ñëw joxe farata mu ne ko insha allahu danaa ñëw joxe farata ja waaye ma ñëw nag waye nak mu ñew nak fekk fi. fekk fi lo xamne lo xamne sama xel dal na ci. xelam dal na ci. julli juma. julli juma. ba ma joge ci juma joju neena ba mu joge ci juma jooju. ne pëccët dem. ne pëccët dem. amna ku ma gis. amna ku ko gis mom ñu dem ba Makka. ñu dem ba Makka. ma fekk fa koko ma fekk ko fofu ma fekk fa koko ma fekk koko Makka. mu ne ma Abdou Aziz. mu ne ko Abdou Aziz. da ngay demoon jàkkay barap sangam da jamon demoon jàkkay barab sangam. ma waw muneko waw munem ne ko waaw. mu ne da ngaa jug. Muneko ne da ngaa jug. ma ne waaw. mu ne lu tax. lu tax ba. muneko dama fa gis luma neexul. muneko dama fa gis luma neexul. motax ma juk lolé motax ma juk genn genn dem. dem julitisbar julitisbar waaye fii de moom. waaye mu ne fii jumaa ji moom. su ma génnee. su génnee. du ma julli tisbaar. fa tabaaraka allahu du julli tisbaar de. ndax gis naa fi lu ma doy sëkk nag. ndax gis na ci jumaa ji nag lu ko doy sëkk nag. te buñ leen ma ca gën a neex neex. nee na li ko ca gën a neex. mooy riwaaya warsh mu jàng. fa tabaaraka allahu mooy sunu maam bi riwaaya warsh bi mu doon jàng. sama Abdul Aziz. nee na sama maam Cheikh El Hadj Abdul Aziz. maam Cheikh El Hadj Abdul Aziz. maam Cheikh El Hadj Abdul Aziz. waaw naa dégg sax ñu naan ñu naan El Hadj Abdou. نينا دمي دغ ني نان علاج عبد جادول لولو جادول بقول لك الشيخ الحاج عبد العزيز نينا بو من واخ الشيخ الحاج عبد العزيز نينا مام عبد بو نغا واخ صح مام عبد بو كي سام عبد الله كي مام عبد الله نينا كي مام عبد الله مي كي محمد المنصور كي محمد المنصور الشيخ الحاج محمد المنصور الشيخ الحاج محمد المنصور جوخ نيت سين تير دا فا ام صلو نينا جوخ نيت سين تير دا فا ام صلو دا يكت سير دا يكت سير تبارك الله تبارك الله روايه ورشبيه نينا الرواية ورشبي بارول فوقي دك دي فتبارك الله نينا بارول فوقي دك دي دك ناتي مام عبد نينا دك سنو مام شيخ الحاج عبد العزيز منوا الجنة منوا الجنة ورش لاني جام ورش لاني جام يا كان ني نيب بغن نيب اجنا خا يا كان نانا ني نيب نا بغن نيو ديب اجنا بابيس جيرجيف نينا حاج بابيس جيرجيف سما واخ نينا واخ واخوما دي يعني الله <laughs> تبارك الله فتبارك الله يعني يالا دوندال لين يالا يالا يالا دوندال لين يالا باي لين في يالا يالا باي لين في يالا يوك سيني مقام يالا يالا يوك سيني مقام لي لي مام عبد نيانالون سيرين منصور نينا لي سونو مام عبد العزيز نيانالون سيرين منصور يالنا لين دال يالنا لين دال خمون كو وخون خمغا نيا لوم كو وخون عيش عش سالما سالما ومعافا ومعافا دائما دائما سندا سندا يأتيكم يأتيكم كل ما شئتم كل ما شئتم بلا تعب بلا تعب بلا تعب بلا تعب تعب تعب اوكي يا مجد يا مجد في صحة في الصحه والسلامة والسلامة وعافية وعافية فالله فالله ينجيك ينجيك من من كيد من كيد ومن كرب ومن كرب yal na leen ko yàlla defal. nee na loolee yal na leen ko yàlla defal. ñun de sant nañu lool bu ñu yàlla booleeg Seydil Hadji Malick. nee na ñun daal sant nañu lool bu ñu yàlla boolee maam Cheikh Seydil Hadji Malick. ndax bu ñu yemul woon ci moom. ndax ñun bu ñu yemul woon ci moom. ab dof la ñuy doon. fa tabarakallahu daal ab dof rek la ñuy doon. waaye Maodo jàpp na. waaye Maodo jàpp ñu. waxuma xëcc ñu de. waaye waxuma xëcc ñu de. Maodo dañoo ŋàcc. nee na Maodo dañoo ŋàcc. dañoo ŋàcc. dañoo ŋàcc. xam nga lan lan la ŋàcc. nee na xam nga lan la ŋàcc. lépp loo xam ne yàlla newu ca. lépp lépp loo xam ne yàlla nekku ca Maodo ngacc na ko ci ñun Maodo ngacc na loolu ci ñun roof ñu yàlla roof ñu yàlla boole ñoom ñii boole ñoom sang yu baax yi ñu jàpp ñu nag ñu jàpp ñu nag yëkkati ñu yëkkati ñu ba ñu maase ak ñoom ba ñu maase ak ñoom ñu ñeme leen lool ñu ñeme leen lool te yebuñ leen te yebuñ leen ñu leen ñaanal nag ñu leen ñaanal boobu yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla jàppale jumaa ji day تيجي تيجي تبارك الله تبارك الله قدس جرجف امام جزاكم الله خير امام جزاكم الله خير توبات توان نسيت جمال الجنبه كما كل عين وجاسا فمجرت ترلل كذاك صاحي ma albaaqina ajmain yow foo fi gis kenn ci ñoom fonkal te bul safoo ak kóolute di seetaan chaîne bi woy leen di ko seetaan ak di ko topp ndax seen cofeel mooy sunu mbégte te li gën a neex mi ngi ci sunu kanam Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV Tivaouane 7 TV abonné wu leen ci chaîne YouTube Tivaouane 7 TV te tamit bu leen fàtte activer cloche notification bi pour mën a recevoir bépp bataaxal mu ñu dugal ci heure bu nekk